doon nettali àdduna tas nay leen ko na ci teg ne bu ñu gerewee àdduna tukki ubbi l'observateur sage femme réew mi gerew bi ñu xëyee démb ci alxames ji yéenekaay bi nee na ñu gis ci hôpital Youssou Mbargane bu Rufisque xale bu jigéen bu doon matu ànd ndeyam dem fa waaye taxi bi leen woon bàyyiwu leen fa nañu ñëwee noonee la ñu delloo ndax sage femme dañu ne duñu ko laal yéenekaay bi nañu teddu foofee rekk ne l'observateur mi ngi ñuy nettali démb ci l'hôpital réew mi paj mu sooxe ba far toog agent de santé yi paralysé nañu doxinu hôpital yi accouchement amul ci maternité réew mi lu dul urgence daal fajkat yi laalu ñu ko démb aktu mu ranke gu rëy journal Sud Quotidien nee nañu askan wi dund nañu ko démb ci réew mi réew mi Quotidien nañu accouchement amul démb baa bokk ameewul ci hôpital public yi ndax grève bi sage-femme yi xëyewoon démb ngir doon jàppale seen natangoy sage-femme yi ñu tëye ci faatu ndem ko nekk la leen internet di yàq nee nañu bu ñu jugee ci lii na jigéen ñu xoolaat bu baax a baax ndax baatub sage-femme bi ñu leen tuddee mérito nañ ko am déet ne seen jëfi démb ji daray sagesse amu ci ñu néeg lañu ay raykat nit lañu ñu irresponsable lañu te dañu leen a war a xool ba xàmmee leen dàq leen wut yeneen sage-femme yu sage journal bés bi nañu gudd yu ñu toll feebar ci réew mi risque la danger de mort gis nañu démb ci réew mi ay jigéeni biir yu dund li ndeem si yàlla asu soxna dund mu di toll ci matu gisoo kenn ku la taxaw kenn faalewu la libération nañu wax ji sax ne dafa des ne bu weesoo hôpital yi réew ñoom it ab gereew la xëyee tey ji danañu tëj seeni pharmacie huit ci suba ba trois heures ci ngoon seen natango bii di docteur Aïcha Goudiam bu la grande pharmacie la ñuy jàppale kii di directeur pharmacie ak médicament it ñoom pharmacien privé yi ci réew mi li bëgg mooy mu dàq ko dóor dàq bu rëy am na ci police réew mi l'observateur nañu démb la dogal bi wadd commissaire de police yu bari jëlee nañ leen fa ñu newoon yóbbu leen feneen ba ca ca libération dañu xamal ne changement yi yemul foofee rek dem na ba ca police bu Touba ca police bu Mbàkke ca Médina ca Caaroy ca Grand Yoff ca Géejawaay ca Parcelles Assainies ak ca Sigicoor journal La Tribune ñu makee fa jaar jaare na cit moom it yéenekaay bi di laaj ana lu Macky di waajal ak di ko nas ba mu waral mu xëy xëy rek indik salfaañoo yu ni mel ci biir police bi góor gi di Abdoulaye Wade mi ngi waajal bu baax a baax élection législative yi journal bind na bi di wax a booloo ànd ko ak waa di parti démocratique Sénégal Wade taxawal na directoire de campagne ba jox ko député ba woon Mamadou Lamine Thiam maire bu Kébémer mu jiite ko suur nañu Abdoulaye Wade coalition bu yaatu la bëgg ci woowile wàlla tàllal na loxo ñépp ba mu des waa yeewi askan wi ñoom ñooñee sax di waa yeewi askan wi suur mi ngi ñuy xamal ne ñu war a gërëm ak a sant alaaji Mali Gàkku la ñu ne budul woon ak Mali Gàkku waaye yeewi askan wi danañu ñu que QG di nos quartier général ne siège bo taxawu Sénégal bañ doon dajé mëntuñ fa dajé yëf ya dafa xat ab puqus la xajatuñu fa hôtel international de la VDN it mënatuñ faa daje ne ñetti fan lañ fa def gis ni fi buñu fi continuer dootuñu amati luñ fa fayé transfert d'argent bi wor RIA sen savon